moom mooy secrétaire bi teraanga bi rafet di wax yow a bokk combat bu a déstabiliser. lamb la bu ko nga ñëw parce boo teewee dafa mel ni nag teew na. waaw damay dama dama lay bàyyi nga dem. waa ci parce que ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi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 mais làkk pour Sénégal yi comprendre am esprit sportivité xam ne làkk am na droit wax dama lu ko neex parce que ñoo bokk contrat da ko war a tegal lu métti wala ko tegal lu yomb loolu yoon la jaarul la kon bu kenn garaawal làkk am na droit boobu amul tamit comprendre la nante la waaw ñëpp ñoo bokkul ne bu ñu paree ñoom ñaar ku ci daan da ngay yëgal sa borom ñu ngi naan rek am nga yóbbu ko tox say jaajëf jaajëf kontaan nañ ci loolu bu baax a baax la dëgg loolu mu def yoon la loolu bu ko kenn naxarlu yoon la day déstabiliser adversaire am loolu baax na loolu moom affaire fi toll ni aspect bu positif la juróom parce que coow li bari na ñi ñaa ngi naan li woon lii bu amee bu amul combat lay defar ñi kontaan ci loolu bu baax a baax boo ñaa encore li ma doon wax léegi ñu ngi leen di félicité yéen bër yi nga xamante ni nii yéen yéen lañ tolloo génération parce que suñu ay papa ñoo fi nekkoon doon ay mbër suñu ay mag nekkoon fi doon ay mbër xëy na situation bi ñoom tombé wul ko woon waaye tamit gis nañ ci yéen benn xalaat gis nañ ci yéen benn esprit d'ouverture gis nañ ci yéen benn tolluwaay boo xamante ne nii gisuñu ko woon ci mbër te lii moo mën a tax ñu respecté mbër encore une fois yi ngi leen di félicité bu baax a baax a baax a baax bu fi age bégaay mbay nekkoon lu ma wax te jox ma ko micro bi sama papa Malick Thiam dafa teew mënuma si dara yoonu Abdou Aziz dinaa ñëw ci patronage fitness kenn ñëw. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi di suñu waajur di ñaanal Sénégal yàlla fi jàmm yàgg di nuyu presse bi yëpp di nuyu tamit sama mbokku mbër yëpp bu waxee Papa Sow wax bàyyi ba ñoom rek yaakaar naa ne. waaw ñi si ñu ko ak Siteu maa ngi nuyu ko nekk trop sant bu ñuy dem suñu ci wàllu baax a baax a man daal lu may daal mooy xare màgg na parce que vraiment xalaat ma am macha allah. di nuyu ñëpp nag waaw man nag kon wax mu ne ma ko noonu xam yi ñu bokk bàyyi ñu day wane ñu wax ni bu jeexee jeex na waaw bu ñu daje saf saf parce que fii am na ñu bëri ñoo xam ne daje nañ fi am na ñoo xam ne ni ñu waxee nii seen combat taxaw na te ñu fi toog ñu ci mel ni franc mi war a bëri Tyson 2 tey gisoo ñu ñuy tam ñoo bokk tey ñoo bokk waaye Siteu Papa Sow combat gënu ko rëy waaw vraiment Papa Sow nekk suma xarit Siteu nekk suma rakk vraiment ñëpp ñu toog ko loo xam ni dañoo ne ni rek ni euh, làmb sport la kon yeneen sport yëpp man nag lu bëggoon wax daanaka Boy Niang wax na ko Malick Thiam wax na ko waaw vraiment damay rafetlu seen wax di wax nii daal ñun mbër bu nekk dafa mbër am dafa yaatu parce que dañ jàpp ni am na ñoo xam ne bu ñu amee ñu feebaree ci mbër mi lañuy si ñii ñoo leen di yoo xam ne mu sax wax nekk dafa mel ni le maire parce que façon recevoir bu nekk lay recevoir di leen di leen di lu ñu am rek dañ koy bokk ñoom mu bëri ak mu tamit bu yi rawatina tamit kon ñu ko waxee mbëri ndaw ndawaan ñu ngi jaale tamit aussi ñu si génn àdduna yëpp parce que nguur moom dégg naa am na équipe lëmm boo xam ne dañoo dugg ci gaal yi maa ngi masawu maa ngi leen di jaale di képp ci sa doom wala sa frère euh, ñàkk bakkanam ci gaal les deux tamit vraiment ñu koy jaale bu baax di jaale ñëpp waa rakam tamit dafa gaañu di jaale tamit aussi Balla Gaye ñu koy jaale Balla Gaye numéro un bi gaañu waaw ñu xamante tamit aussi dafa ñàkk jot mu rek teewul du nuyu ñëpp ak magu papaam tamit di nuyu ñëpp ku nekk turam ak di wax ni daal pexe ñàkk pexe pexe la ñàkk waaw di nuyu président bi di ko jaaree tam aussi ci ministre des bi nga xam tam aussi moom la jiital mu yor sport bi yëpp ñu ngi leen ñu ngi leen di ñaan que ni tam aussi ñu xoolal ñu ban solution mooy mën a am pour ñu tàngal suñu yaram pour ñu mën a ñëw bëri parce que tam aussi si la ñuy dimbali suñuy famille mais ci ñuy dimbali tamit jàmbur yi. waaw ci li ñuy dimbali tamit ñëpp parce que tey lépp ñu yor dañ koy bokk doomu aadama yëpp mm. waaw fii Sénégal la waaw xam naa nag foofu laay mën a yem wax mu doon ko di wax ni tamit aussi sport la comme ni nga ko waxee am naa coopération bu baax que ni tey mere woon naa ko mais jàppalatuma ko dara ah, voilà sama xeet waaw parce que boo xoolee euh, bu ma suñ premier suñu combat beneen que yar bu gisoon ci moom ak téye def erreur bu mag mm. suñu moto yàlla suñu borom duñ toog doomu aadama leneen la ñuy mu fi nekk dina juum parce yàlla moo ñu sàkk si ñàkk mat waaw kon tamit xam naa dafa accident la am ne dafa juum mais amul problème sport la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 tàccu leen loolu maanaam ña ko wóorul waaw mais jërë ngeen jëf ci nuyu assistance bi yëpp di nuyu leen suñu mbokk journaliste mais boo ñaa di la nuyu di ko rawatina mbir mi la ko def te defe naa ne man kenn jiituwuma ci waaw waxuma ko pour ñu ne kii day jaay affaire connaissance di wane ne moom connaisseur la man yooyu yitteelu ma ñun dañoo jaboote xale yi waxal ba kenn asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam ginnaaw bu ñu sant yàlla di julli si yonent bi di gërëm suñu waajur di ñaanal Sénégal yàlla fi jàmm yàgg di nuyu presse bi yëpp di nuyu tamit sama mbokku mbër yëpp bu waxee Papa Sow wax Baye Mandione rek yaakaar naa ne waaw ñi si des yëpp dañoo ko ak Siteu maa ngi nuyu ñëpp ak ku nekk trop sant bu nuyu ñu bëri jaar naa seen loxo ci wàllu bëri jàngal nañ ma bëri ñu nuyu ñëpp di rafetlu nag vraiment teewaay bi ñu booy ñaa defal na ko Sénégal yëpp defal ko loolu làmb yëpp ñu si am contentement bu baax baax baax baax man daal lu may daal mooy xale màgg na te ñaawul vraiment xalaat mu am macha allah ñu nuyu ñëpp nag waaw man nag kon wax ma ko naa yi ñoo bokk ndey ñu mooy bu jeexee rek jeex na waaw bu ñu dajalee saf-saf parce que am na ñu bëri ñoo xam ne dajalee fi laale am na ñoo xam ne ni ñu waxee nii seen combat taxaw na te ñu ngi fi toog ñu ci mel ni franc mi war bëri Tyson 2 tey gisoo nit ñi toog ñu gënu ko waaw vraiment Papa Sow suma xarit surtout nekk suma rakk vraiment ñëpp ñu toog rek ñu koy ñu nekk loo xam ne dañoo ne ni rek. Euh, làmb sport la kon yeneen sport yëpp man nag lu bëggoon wax daanaka Boy Niang wax na ko Malick Thiam wax na ko waaw vraiment damay rafetlu seen wax di wax nii daal ñun mbër bu nekk dafa mbër am dafa yaatu parce que dañu jàpp ni am na ñoo xam ne tey bu ñu amee bu ñu feebaree ci mbër mi ñu jubal si ñii ñoo leen di des seen problème yoo xam ne doo mu sax wax heure bu nekk lañ ñuy fëgg ñun dafa mel ni ñooy monsieur le maire façon recevoir bi rek lay recevoir bi te amuñu droit di leen di leen di lépp lu ñu am rek dañ koy bokk ñoom mu bëri ak mu néew kon tamit bu gars yi arrêté ngi jaale tamit aussi si génn àdduna parce que boo xam ni dañoo dugg ci gars yi maa ngi masawu maa ngi di leen jaale di jaale tam képp ci sa doom wala sa frère ñàkk bakkanam ci gaal gi les deux tamit vraiment ñu koy jaale bu baax di jaal ñëpp waa rakam tamit dafa gaañu di jaale tamit aussi Balla Gaye ñu ngi koy jaale Balla Gaye numéro 1 bi gaañu waaw bu rek teewul du nuyu ñëpp ak magu papaam sant di wax ni daal ñàkk pexe pexe la ñàkk pexe pexe la waaw di nuyu président bi di ko jaare tamit aussi ci ministre des sports bi nga xam tamit aussi moom la jiital mu yor sport bi yëpp ñu ngi koy leen ñu ngi leen di ñaan que ni tam ñu xoolal ñu ban solution mooy a am pour ñu tàngal suñu yaram pour ñu mën a ñëw bëre parce que tam aussi si la ñuy dimbali suñuy famille mais ci la ñuy dimbali doomu aadama yëpp waaw fii Sénégal la waaw xam nag foofu laay mën a yem ba ko wax mu néew ko ñu ñuy tamit aussi vraiment rôle waaw vraiment seen teewaay bi rafetlu trop waaw di wax ni tamit aussi sport la comme ni nga ko waxee man am naa compréhension bu baax ko ah, parce que euh, daanee soo la xoolee image yi maanaam su ma doon tànn xarit ndax dëggeer laay tànn xarit boo la xoolee image yi ko gis parce que yàpp mu gisoon ci moom ak téye mu gisoon ci moom nit nag doomu aadama bu nekk yàlla moo ñu sàkk si ñàkk mat soo deful erreur bu ndaw di nga def erreur bu mag mm. suñu moto yi suñu borom duñ doomu aadama leneen la ñuy mu fi nekk dina juum parce que yàlla muñ sàkk si ñàkk mat waaw kon tamit mais amul lépp lu mën di am rek nañ ko yemale ci cadre sport waaw wax ci li ñuy wax ni seytaane waxul di ko yàq na xel waaw lu mu ndaw ndaw mu ko toog sax bu ne ëma seen sa xel xaw a jam ci loolu day xaw am lu muy dund sport nañ koy cadré ci wàllu sport benn tàkkusaan la dañ ciy laale mën a yóbbante nag nee ko dina saxte du yomb ok gars yi merci ah jaajëf jaajëf kontaan nañ ci moom bu baax a suñu papa Maxime Badiane gars yi ñooy ñaan suñu suñu jërë ngeen jëf. baax yaay. waaw tàcc leen loolu. maanaam ku ko wóorul. waaw yëpp. nuyu leen di mbokk journaliste yi. mais boo yëpp.